ndeysaan waa Baye Ma Ndiaye yaa ngi noonu ñii ñoo jóge Géejawaay ñii ñoo jóge Asalem Paris ñii jóge Fiij Mbiij ñii la Baye Ma Ndiaye indi ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi ñu ngi noonu Thank

kii wuro wa dem na këng waxu mag dem dañ taali dàgg war mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb Baye Mandiaye Kaaw Gourdin ñaari xale yi wàccaay bi naam yàggul ndax bañ leen jàppee bañ leen jàppale dat yàggul ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale arbitre bi ngi waaj a sifflé ñaari booy yaa ngi noonu noonu damaa xamul presse bi ñi dugg jege di jël la la la la leen dara arbitre bi ngi wax ñaari mbëri di règlement bi nag ak li mu bañ Baye Ma Ndiaye ndeysaan ak Kaaw Gourdin mbokk yi arbitre bi sifflé na Baye Ma Ndiaye Kaaw Gourdin ndaysaan mbokk yi ñu ngi ci lundi 15 août 2022 arène nationale production moo ñu fi woo ndaysaan drapeau Jamil Sané maire des Parcelles Assainies il est vingt heures vingt cinq minutes ñaari xale yi ñu ngi lewaatoo Baye Mandiaye ngi na tekk di déglu Kaw Gourdin Kaw Gourdin jiital tànk càmmoñ Baye Mandiaye jiital tànk càmmoñ muy ñaari garde normal ñoom ñaari xale yi Baye Mandiaye Kaw Gourdin ñaari xale yaa ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu Baye Mandiaye Kaw Gourdin Baye Mandiaye Kaw Gourdin daw na dóor Baye Mandiaye dóor na ko Baye kaaw jël na tànk ba dëj na ko wala de daan na ko kaaw Gourdin daan na Baye Mandiaye kaaw Gourdin daan na Baye Mandiaye kaaw Gourdin daan nee na baal leen ma nee na wuy sama nee na baal leen ma ndeysaan xoolal lii Ibrahima lii dafa rafet mbër da ngeen di sportif xoolal Baye Mandiaye ay supporteram Baye Mandiaye daa daan ñu tàcc ko encouragé ko dammuñu chaise yàquñu defuñu dara lii mooy sport xale yi ñu bari dañoo war a roy ci lii Baye Mandiaye daa daanu jël ko bett mais xoolal xale yi ni ñu toogee ndaysaan ñoom ñëpp njàqare lañu am ndaysaan kaaw gurdee daan na Baye Mandiaye oh, daan na ko waay Baye Mandiaye ngay da jooy Baye Mandiaye daanu na jël bu ko bett ndeysaan ndeysaan daanu na jël bu ko bett ndeysaan tele lay waxee Baye Mor bu lamb ji desee une semaine barki yonent bi maa ngi hôpital xoolal sama tànk bi tànk bi dafa xar dañ ko ñëw mais bëgguma làmb ji yàqu. la gaañ ci tànk. rek. accident wu la ci entraînement ñun lu ñu gaañ ci sunu liggéey dañ ciy sant yàlla. nan la la gaañee ak mu gaañ ma mu xotti ma ba sidit bi. ba laal sidit bi dañ ko ñëw nii mais bëgguma yàq làmb ji toog naa une semaine entraîné ma waaye ko li Dalifort comprendre ma bu baax toog sama place barki yonente bi kon awma leen lu dul di sant waa Dalifort fooraay bi Dalifort fooraay bi tey gis naa fi 100 pour cent yaraax bi yëpp ma ci ni nga bëreeg Baye Ma Ndiaye Baye Ma Ndiaye musul am defet defet bu njëkk ci làmb yaa ko daan nan nga bëre. nee naa la dafa war a daanu la 15 munu ci dara yàlla la rek du leneen. dama bëgg nga ñëw ñëwal. Baye Jili ñëwal Baye Mor.